dégg nga lu waral tey ngeen ne da ngeen di ñëw dooleel Sabel ci li nga xam ne mooy répétition bi balaa le 3 di jot. waaw Sabel suñu sista suñu sœur la mu nekk nit ku baax nit koo xamante ne ñun nit la bëgg xam nga yemale ñu aussi donc Sabel mënul xewle te ñun duñu teew. le 3 mun nañ la xaar sur scène. incha allah te da ngeen ñu fekk li sànq ni ñu nekk fii di di di waxtaan. Mm-hmm. lan lañ war a def lan lañ war a sol le 3 incha allah. Mm-hmm. di ngeen gis lu doy waar. Mm-hmm. lu doy waar. Hmm. su ma ko waxee rek gëm. yaay wax lii en général dañ naan àndu jigéen du dem dina dem mais gis nañ seen ànd bi macha allah Sabel wax na ko ngeen bokk projet mais boobu ba léegi yéen a ngi téye lan mooy seen force. parce que dañoo dëggu. dañoo dëgg dëggante te yàlla rek tax mm-hmm. donc ba tax na ku ci am bis wala nga xewle dara ñun dañ koy def suñu yëfu bopp Dieyla mm-hmm. moo nekk nit koo xamante ne bu dara xewee moom moo ñuy woo ñun ñëpp nan la ñuy defee nii lañuy defee joor jëli ko xam nga wala <laughs> ñu dase ñun moom na nit xew xewle rek bu xewlee rek ñu programmé waajal ko nag toog di xaar mm-hmm. mën nañ fàtte lépp ba mu des loolu da ngeen ciy dem ba mu jeex yàlla rek tax daal ndeysaan mhm. ah, tey ñu bari seen ànd bi am na ñu muy neex mais am na boo xoolee ñoo xam ne du leen neex parce que ngeen di def te tey bu ñu nee musique dañuy jàpp ci yéen ñëpp ay war a doon mais doonoo leen ko lan moo tax du ngeen concurrence ante seen biir ci wàllum musique ci wàllum woy parce que ku ci nekk da am sa yoon ak sa objectif ak foo a ak foo bëgg a egg mhm. donc ñun ñii ñoo mën a jàppalante parce que ku ci nekk musique dafa yaatu boo xoolee Europe artistes yi fa nekk dañuy jàppalante seen biir teewul ku ci nekk xam nañ la ci àdduna yëpp donc ñun fii nii bu fekkee dañuy concurrence ante dañuy sonal suñu bopp ku ci nekk prouver da liggéey fi nga nekk pour nga mën a egg fi nga bëgg a egg sa morom jàppale la si loolu rek mhm. lan ngay wax fan si fan lañ la mën a xaar parce que itam wareef la tey ngay tëgg ci ay événement yoo xamante ne ñi la bëgg dinañ dafa fekk maa ngi si maa ngi ci man damay jël sama temps yàkkamtiwu ma dara mhm. parce que bu dul dara man ma commencé carrière wu yàggul donc euh, dama war a liggéey lu bari bari bari bari bari mhm. maa bi mais nañ toog xaar danañ gis mhm. affaire yu dooy doy waar spectacle yi concert yi ay album son lu ne mhm. ak featuring ñun nii loolu dina grave de ah. <laughs> macha allah merci beaucoup ba léegi rek ñu fekk leen si répétition Sabel ngeen dooleel ko tey mu nekk loo xam ne c'est rare ñu gis ko ci li nga xamante ne mooy wàllu musique jox mbaay ah salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp waaw di kontaanaat ci jàkkaarloo ci yéen waaw euh, comme ni ma ko waxee rek ñun ñëpp benn lañ fi mu yàlla boole nañu ba pare ñu doon wax du dem ak du dem defe naa booy ànd ak nit ren ba déwén effort def na at incha allah ba tey tey la gën a neex mm-hmm. tey la ànd bi gën a dëggu mm-hmm. donc euh, lii par force la waxoon nañ leen ko nee nañ foo gis kii di nga fa gis ka ka ca des mm-hmm. te bañ ko waxee ba tey loolu moo am macha allah waaw ah, tey le 3 mën nañ xaar ñëpp xam nañ ne daanaan nga bu Sabel yuuxoo day mel ni Dior moo yuuxu day mel ni Dieyla day mel ni Dieyna le 3 lan lañ mën a xaar ci yow sur scène. waaw lu doy waar lii dañ ko namoon parce que euh, événement la boo xamante ni Euh, effort mooy ñëwaat taxaw. Mhm. voilà donc euh, képp ku namm groupe effort wala nga nam say idole. Mhm. wala nga namm ñoo xamante ni ñoo lay bëggal. Mhm. da ngay ñëw grand théâtre le 3. ndax bu ñu waxee lépp sax du neex. surprise yi moo dàq te surprise kenn du ko wax à l'avance. mais yu doy waar yi na fa am incha allah. Mm-hmm. alors nga def tube boo xam ne récemment mi ngi def buzz. Mm-hmm. ku ci nekk kuy jigéen kuy battante xelam day dem ci woy bi nga xamante ne woy boobu. say inspiration son guy gi fan la jógee mu nekk tube boo xam ne macha allah. waaw guy gi euh, guy gi vraiment dafa nekk loo xam ne daf ma tenir à cœur parce que nit ku ci nekk looy def rek da nga cee bëgg a sax ni guy. samp ci. Mhm. Euh, métier bu manti doon. Mhm. boo da gis nit ñi buy ñuy mujjee ñëw dañ la jéem a détrôner. Mhm. dinañ la jéem a déstabiliser dinañ la jéem a jaxase. mais da ngay am mantale de fer. nga dëgër samp ne guy. loolu moo tax ma ne guy yëgul picc nag ñëw na takk ci kuy guy. guy yëgu ko. picc kës kësi ba sonn. dem puis guy yëgul mhm. picc day mujj naaw ni fër te guy du tax mooy bouger mhm. donc ma ne guy gi yëgu la loolu moom mooy guy ñun ñëpp guy lañ mhm. rawatina waa effort ñun foo ñu gis dañuy samp ne guy incha allah loolu lañ. yéen rek maa bëgg a liggéey. non ñaar ñi samay xarit lañ. léegi ma liggéey ba pare. suba ba tey maa ngi ne la. da ngeen maa liggéey. du ma leen jox benn lox. allo. allo allo allo.